بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi fas yéene dugg ci jaamu yàlla boo xam ne ñu ngi ci yaakaar yiw yàlla defal ñu ko defal leen ko jaamu yàlla boobu mooy fàttalante comme ni ñu ko buur yàlla tabaraka wa taala sante ci qur'an fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin borom bi tabaraka wa taala sant ñu ñuy fàttalante ndax yàlla nee na fàttali day jëriñ ab jullit kon mbokk yi ñu ngi jéem a fàttalante ak ayeen ci tomb bi nga xam ne mooy atawakkulu ala allah wa tawaakulu التوكل على الله عز وجل هو الاعتماد عليه توكل على الله te mooy wàkkirlu ci yàlla mooy nga sukkandiku ci moom nga jël sa mbir yëpp teg ko ci kaw yàlla tabaraka wa taala nga jël sa bopp jébbal yàlla sa lépp nga sukkandiku ci moom fi bulugi natija baada bazlil juhd ginnaaw ba nga joxe yàlla sa bopp ngay xaar résultat waaye day fekk nga def ay effort wa taqdimil amal day fekk nga liggéey soo liggéeyee li ngay liggéeyee ba pare mën ngaa xaar résultat su doon kuy ut liggéey la mën na def demande dem déposer ji ñëw di toog di xaar dañ koo jël naka noonu la baykat di def baykat day yaakaar yàlla dem toolam ruuj préparer suuf si mu toog grain bi daal di koy saxal wala bu fekkente ne du nawet bu saxalee ba pare mu jël arrosoiram di roose léegi nag muy xaal résultat meññeef bi ci yàlla tabaraka wa taala loolu mooy tawakkul tawakkul lu ki koy def dafa am lu muy def ba pare su ko defee léegi nag résultat bi mën naa dem di xaar buur yàlla tabaraka wa taala loolu mooy atawakkulu ala allah comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe ci alquran wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xas képp ku wàkkirlu ci yàlla yàlla doy la inna allaha baaligu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra yàlla lek rek tabaraka wa taala moom la ay mbiram mat moom la ay mbiram jot lépp lu ngeen gis borom bi tabaraka wa taala def na ci dogalam amma atawaakul bu dee yàccaaral bu dee càggante fa huwa itimaadu ala allah mooy nga ni dama sukkandiku ci yàlla jël naa sama mbir yëpp jox yàlla waaye doo liggéey doo def dara misaal bu doon ab baykat day tëdd di nelaw ginnaaw ba mu jëndee saaku gerte am tool am lépp nawet jot au lieu mu dem ruuj ji jot au lieu mu ji day jël saaku gerte gi bàyyi ko ci magasin bi tëdd daan ne yàlla laa yaakaar loolu xam ngeen ni moog a tawakkalu alallah du benn tawakkalu alallah mooy ginnaaw ba nga amee nji ginnaaw ba nga amee lu ji nga am tool nga dem ruuj mu taw nga ji nga topp cay nemmeeku di dàq picc ya di xaar nag mu daa di am meññeef loolu mooy tawakkul alallah amma tawakkul mooy am ji toog demoo bay naan jox naa sama bokk sama bopp yàlla benn arab dafa ñëw Médine ziar si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñëw yonent bi ne ko ana sa waruwaay mu ne bàyyi naa ko fële ci ëtt ba wàkkirul naa ci yàlla yonent bi ne demal nga jël ko nga yeew ko ci garab yi nga wàkkirul ci yàlla loolu mooy tawakkul ala allah ginnaaw ba nga defee li nga war a def ba pare nag léegi su ko defee résultat bi mun nga xaar sa borom ci yàlla tabaraka wa taala mbokk yi omaril muminin amirul muminin omar ibnul xataab radiallahu anhu wa ardaahu mu ngi mooy tandikuloo lool ñu naan tawaakul te mooy yàccaaral yambare toog di xoole yaakaar yàlla te doo def dara omar mu ngi ne laa yaqadu ahadukum an talabi rizq wa huwa yaqul allahumma arzuqni wa qad alima anna as-samaa laa tamtiru zahaban wala fidda laa tumtir zahaban wala fidda amirul muminin omar njiitu jullit ñi radiyallahu anhu wa ardaahu mu ngi mooy tandikuloo nee na kenn ci yéen bu mu toog yaakaar ci yàlla wërsëg naan yow yàlla yàlla nga ma wërsëgal te moom xam na ne asamaan du taw urus du taw xaalis mbokk yi urus ak xaalis ku ko soxla da nga koy sàkku ji da ngay dem nga liggéey ji da ngay dem nga ñaq da ngay dem nga daan sa doole loolu mooy tawakkulu ala allah mooy da ngay xëy génn dem wëri yaakaar yàlla tabaraka wa taala nag ñaan ko yàlla na la yàlla may loolu mooy tawakkulu ala allah mbokk yi wala yambagi li ahad an yattaxisa alqadr sabilan ila tawakkul kenn ci yéen bu mu jël ndogal kenn ci ñun bu mu jël dogal naan su neexee yàlla su neexee yàlla su neexee yàlla mu bañ a wàkkirlu ci yàlla tabaraka wa taala loolu bu ko kenn ci ñun def nee na loolu dafa yóbbu nit ci mooy yàlla tabaraka wa taala bal yajibu alayhi an yadfa alqadr bilqadr dogal da nga ko war a dàqe dogal su dogal dalee sa kaw dogal bi dal sa kaw da nga koy dàqe beneen ndogal comme ni ngay dàqe ndogalu mar dogalu naan dogalu mar yaa ngi koy dàqe dogalu naan waaw soo xiifee nga dàqe ko dogalu lekk soo maree nga dàqe ko dogalu naan loolu moom mooy atawakkulu ala allah kenn ku kenn ci ñun ku xiif doo toog rek daane maa ngi xaar yàlla tabaraka wa taala waaye ni ngay def mooy da ngay dem mbokk yi nga jéem a ut loo lekk boo maree it doo toog naan maa ngi xaar yàlla yàlla may ma ma naan waaye bal da ngay dem nga ut loo naan loolu mooy nga dàqe ndogalu mar dogalu naan nga dàqe dogalu xiif dogalu lekk nga dàqe dogalu feebar dogalu faju nga dàqe dogalu ñàkk dogalu uti pour nga mën a am mbokk yi waaye doomu aadama bi day dàqe dogalu tayal ci cawarte ci liggéey ñaar yooyu nag muy atawakkulu ak tawakkulu fa tawakkulu xusnu zann billah alladi yajri al muxsinin alladi yajzi al muxsinin borom bi tabaraka wa taala mu ne différence bi nekk jébbal sa bopp yàlla ak yàccaaral toog yambare xusnu zann billah mooy da ngay rafet ci yàlla njort yàlla mi nga xam ne moom mooy fay ñi rafetal bu dee yàccaaral nag fa suu zan mooy nga ñaaw njort ci sa borom ki nga xam ne dem na uti li mu am kooku mi ngi yaakaar yàlla mi ngi rafet ci yàlla njort ne yàlla dina ko may balaa jant bi so lu mu yóbbu këram waa ji tëdd ci kaw lalam nag yàccaaral kooku dafa bëgg tuumaal yàlla ndax dafa bëgg wax ne fii ma tëdd ci kaw lal bi yàlla dina ma indil lu ma dund kon mi ngi tuumaal yàlla tabaraka wa taala atawakkulu mbokk yi quwwatun wa izza jox sa bopp yàlla kattan la ak teddange wa tawakkulu ajzun wa zillun yàccaaral tële la ak toroxal sa bopp képp koo gis muy jox boppam yàlla kooku na yëg ne dina am kattan kooku na yëg ne dina tedd waaye képp ku ngeen gis mu yàccaaral na ngeen yëg ne am yambara ngoog te ku tële ngoog ku mënul dara ngoog ku nar a toroxal boppam a ngoog ndax alxarakatu baraka yëngatu yàlla def na ci barke loo yëngatu lu mu tuuti tuuti tuuti borom bi tabaraka wa taala dina ci dugal barke ixwaani mbokk yi atawakkul ibada lillahi wa taati wa tawaakulu asiya wa isma wàkkirlu ci yàlla te mooy jox sa bopp yàlla tabaraka wa taala jox sa bopp yàlla moom di nga gis ne jaamu yàlla la ak topp yàlla jaamu yàlla ak topp yàlla mooy atawakkul jaamu yàlla la waaye topp yàlla la ama tawaakul bu dee yàccaaral nag ak yambare moom di nga gis ne maasiya mooy yàlla la waaye wa ismun ak bakkaar mooy la ak bakkaar beneen bi mooy borom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran fa inna tawakkul ala allah ayatul iman kii jox boppam yàlla kooku day wane ne moom kat am na ngëm yàlla tabaraka wa taala moom de gëm na kan la gëm buur yàlla tabaraka wa taala la gëm kan la jox boppam buur yàlla tabaraka wa taala la jox boppam yàlla mu ne ku wakkirul ala allah am na ngëm gu mat sëkk wa qaala muusa ya qawm in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin yonent yàlla Muusa mi ngi wax ca doomu aadama yi ko yàlla yónni woon ca yahud ya ngi leen ne yéen samay mbokk su fekkente ne gëm ngeen yàlla na ngeen jox seen bopp yàlla na ngeen jébbulu ci yàlla na ngeen wakkilu ci moom fa qaalu alayhi tawa alallahi tawakkal na ñoom ñépp ñu daal di ànd ne ko ñun jox nañ sunu bopp yàlla jébbal nañ sunu bopp yàlla sunu mbir yépp jox nañ ko yàlla yàlla mu ne wa xaraja maahu muhaajirina fa kana natija ma wasafa allahu taala wa awrasna alqawma alladi kaanu yastadcifuna mashariqa al ard wa magharibaha allati baarakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alxusna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kaana yasnau firauna wa qawmu wa ma kaanu yacrisuun keroog ba Moussa woowee banu Israil ne leen jox leen seen bopp yàlla ñoom it ñu daal di nangu daan ne jox nañ sunu bopp yàlla wéetal nañ ko bàkk nañ ko kañ nañ ko yàlla mu ne résultat bi lan la mu daal di génn gàddaay banu Israil daal di koy topp moom Moussa alayhi salaam résultat ba fa mujje yàlla mu ne donnloo naa bani Israil suuf sa suuf sa nga xam ne ñoom lañ ci doon noot di lañ ci teg ay coono ak ay jafe-jafe penku ba ba sow ba yàlla mu ne delloo naa ko seen loxo waaye ba ma leen koy delloo dama ko barkeel kon loo gis mooy doomu aadama su wakkirloo ci yàlla tabaraka wa taala rek résultat bi buy ñëw mooy yàlla tabaraka wa taala daf koy defal xiiw comme ni ko yàlla defee defalee waa banu israil yàlla Moussa nee na leen wàkkiru leen ci yàlla ñu ne ko ñun wàkkiru nañ ci yàlla Moussa génn gàddaay gaay daal di koy topp lan mo lan la résultat ba jur yàlla nee na wa awrathna al qawma alladi kaanu yastadifuna mashariqa al ard wa magharibaha yàlla nee na delloo naa leen suuf sa donnuloo leen ko suuf sa nga xam ne dama cee def barke waaye wa tammat kalimatu rabbika al husna ala bani israil yàlla mottali ci banu israil ay xéewalam yu mat sëkk lu tax nag bi ma sabaru ndax ñoom dañoo muñoon yàlla daal di jël seeni noon alak dammate leen firawna ak lam doon def moo ay nitam ak tool ya sax keroog ba ko yàlla di alak yàlla dafa alagaale tool ya ixwaani man araada saada dunya wal axira falyatawakkal ala allah képp ku bëgg taxa te texe adduna képp ku bëgg taraanga alaxira wàkkirul ci yàlla jëlal say mbir yëpp nga jébbal ko borom bi tabaraka wa taala ginnaaw yow ci sa bopp ba nga joxe yàlla ci sa bopp nga jël say mbir yëpp mbiri àddina ak mbiri alaxira nga jébbal ko sa bopp loolu mooy man araada saada ku bëgg texe atawakkulu huwa siqatu billahi azza wa jal wàkkirul ci yàlla mooy nga am ci yàlla confiance naka ngay amee benn waay boo xam ne kilifa la ca dëkk ba mu dëkk wala gox ba mu nekk wala ci benn place bu ñuy liggéeyee wala njiitum réew nga am ci moom confiance jébbal ko sa mbir te toog di yaakaar ne sa mbir yooyu baax na rawatina allahu subhanahu wa ta'ala buur bu toll na yàlla ku ko jébbal say mbir mu nekk dëgg sa mbir yëpp dana sotti dafa am benn waaye bu tëdd guddi di nelaw mu daal di gént ñu ne ko diw demal nga régler ay problème am diw demal nga régler ay problème am ndeysaan ba mu géntee ñu ne ko diw demal nga régler ay problème am mu yeewu wëri waa jooju ba gis ko régleel ko ay problème am yépp yu mu amoon ci àdduna mu réglé ko dara desul nag lu dul muy dem mu ne waa ji problème boo amati sama numéro téléphone a ngi nii boo ma ñëw réglé ko allahu akbar waa ji ne ko soxlawuma sa numéro téléphone te duma la musa woo mu ne ko ah lu tax mu ne ko man buur bi la yee guddi ngay nelaw ne la demal ci diw nga régleel ko ay problème am man buur boobu doy na ma xam nga xamoo moon xawma la ki tax nga yeewu bàyyi salal dugg ci sa oto def ci dawal ko ba fii régler sama problème ki la yee man ci kooku laa amal affaire allahu akbar loolu mooy nga am confiance jullit day am confiance ci yàlla tabaraka wa taala mooy mu am fiqa billahi mu am ci yàlla kóolute tey nag ñun jullit ñi bokk na ci suñuy problème mooy dañoo amul ci yàlla kóolute ñaareel mooy atawakkulu huwa taslimu li amri rabbi wa qadaihi tawakkul ala allah ki koy def mooy ki jël mbiram yëpp jébbal yàlla waaye ak ndogalu yàlla allahu akbar ginnaaw ba nga jëlee say mbir nga jox yàlla waaye da ngay nangu dogalul yàlla jël nga këyit di déposé ji wala feebar nga dem nga hôpital wala jël nga njimi dem ca tool ba jikko da ngay dogal nag la ca yàlla def faju ji nga wéroo dellul sa bopp ci yàlla tabaraka wa taala xam nga ne xamal ne yàlla la neex wéru waaye def nga sabab yi dem nga bay am na lu dal ca tool ba nangul dogalal yàlla déposé nga kayit yi jëliñu la nangul yàlla lim def tukki nga amoo nangul ndogalal yàlla ak taslim li amri rabb da ngay jébblu ci mbiru yàlla waaye wa qadaihi yàlla lum dogal rek nga nangu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam benn bis laaj na omar a muminuuna antum omar ndax yéen gëm ngeen yàlla omar ne ko naam waaw waaw gëm nañ yàlla mu ne fama alaamati imaanikum omar luy wane ne yéen gëm ngeen omar ne ko narda bil qada dañoo nangu ndogalul yàlla wa nasbiru alal bala dañuy muñ jafe-jafe yu ñu yàlla teg bépp balaa bu ñu yàlla teg ñu muñ narda bil qada wa nasbiru alal bala wa nashkuru fi raxa su neexee ñu sant yàlla ab jullit noonu lay mel su neexee nga sant yàlla su mettee nga muñ su la yàlla tegee ay jafe-jafe ay jàngoro ki feebar nga daal di koy tegoo lii mooy islaam lii mooy ngëm yàlla lii mooy tax yàlla xam ne am na benn jaam bu ko gëm buy jël ay mbiram yëpp di ko delloo waaye xoolal ñun da ngay gis nit bëgg liggéey di dem ci ay xarfa fuufa di dem ci ay bokkaalekat ay sëriñu tariyaax ñu koy sangak wala nit bëgg a tukki ah dem di sangu ji di wari xàmb di tuur ndox di dëgg paftan mbokk yi ngëm yàlla ak jébbalu ci yàlla léeg-léeg nga dékku ne man gëm naa yàlla waaye dara desul lu dul nattu ñëw na nga gis mu saali dugg ci lu kenn xamul benn waaye dafa amoon kaafu ginaar am sàcc boo xam ne da koo nen ñëw di sàcc rek ba ginaar yee jeex tak wala ginaar yi des tuuti waaye sàcc bi gën a metti bi mujj dafa ñëw jël genn wàllu ginaar yëpp yóbbu bàyyi fa ñett ba mu demee waa ji yeewu gi sàcc nañ ay ginaaram mu daal di jàpp julli ñaar raak daal di ñaan yàlla tabaraka wa taala daal di sujjoot daal di ne yàlla yàlla nag ma àtte maag sàcc bi sàcc bi daal di xëy suba rek yaram bi daal di saxi dunk ay dunk ginaar sàcc bi wër dëkk bi yëpp di faju ndax dunq yi dañ di nëbbatu mënatul génn di sol yére di muuru ndax lan yaramam bi dafa saxi dunk ba mu egg ci benn boroom xam-xam bu mag waa ji ne ko yow de man mun naa laa faj mën naa fexe dunq yi dañ mu ne ko bismillah loolu ma fi indi mu ne ko nag da ngay nangu li ma lay wax nga def ko mu ne ko lan laay def mu ne ko da ngay dem nga sàccaat yeneen ginaar yi des allahu akbar wax ji ne ko yow ah da ngaa ref yow man ma sàcc genn wàllu ginaar yi lii dal ma nga ne naa dem eggali ko mu ne ko xanaa da ngaa feebar nga ñëw pour ma faj la mu ne ko waaw mu ne ko mani lii lay faj mooy nga dem eggali ji ginaar ya loolu rek mooy tax nga wér waa ji ne ko dinaa ko def mu bàyyi ba mu am ñetti fan mu delluwaat ca kër ga bàyyi ba guddi mu tëbaat bënn sàkket yi daal di jël ginaar yi fa des dem yoonam borom ginaar yi mbokk yi bañ jëlee ginaar yu njëkk yi lu mu defoon dafa demoon jàpp julli ñaaraaka ñaan yàlla ba ñu jëlee ginaar yi deuxième fois nan la def dafay bàyyi yàlla dem ci borom bu xaaba yi ba mu fi bàyyee yàlla dem ci bu xaaba ya yàlla di ko wan ne bu xaaba yi munuñ dara yàlla daal def dum ko ya da saxoon ca waaja daal di dañ gis nga wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ku yàlla doyul mbokk yi dara dootu la doy léeg-léeg nga dégg ci Sénégal ñuy wax baat baat yoo xam ne warul dugg ci nopp jullit waxuma la nga muy génn ci gémmiñam jullit mooy yàlla kese dafa di tax yàlla kese kese dafa di tax foog nga jàpp ci yàlla ak dara loolu du wax ju jub te du waxub jullit jullit yàlla kese daf koy doy mbokk yi atawakkalu wa taalluqu billahi fi kulli xaalin wàkkirlu ci yàlla mooy aju ci yàlla ci mboolem mbir yi mooy ataalluqu billah mooy nga aju ci yàlla fi kulli xaal ci xew-xew bu mun a xew ci lépp lu mun a am ajul ci yàlla lépp lu mun a xew rek delloo ko yàlla tabaraka wa taala gis nga saxaabatu kiram keroog bañ nee ne inna annaasa qad jama'u lakum dañoo dellu ci yàlla wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil ñun yàlla doy nañu ab julit luñ la njëkk a wax lu mu mën a demee lu mu la métti métti dellool sa bopp ci yàlla ataalluqu billah fi kulli xaal julit yi nañuy dellu seen bopp ci yàlla ci bëpp xew-xew tey loolu mooy li nga xam ne moonu manqué dañuy wër ba sonn da ngay gis ku feebar ñu yenu ko wër wër ba sonn munuñ ci dara ñu yow ne yàllaa ci des allahu akbar kan moo ci kan moo ci njëkkoon yàlla ku ciy mujj yàlla kon ka ciy njëkk nañ ko ko delloo rek lan moo tax dañuy wër ba sonn doog ne yàlla ab julit mooy ki nga xam ne ay mbiram yépp daf koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala guddi ak bëccëg tële ak mën wér ak feebar am ak ñàkk lépp daf koy delloo yàlla ci mboolem xew-xew yi yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam bu neexoon daan na wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat yonent bi doon na wax loolu su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal gis nga ñaarib day sant yàlla kon ab julit bokk na ci luy tax ñu xam ne am na tawakkul alallah mooy mu delloo léppam yàlla su neexee su naqaree su mettee su feebaree su amee su ñàkkee lépp lu mën a am mu delloo ko yàlla tabaraka wa taala mbokk yi atawakkulu huwa rida ala allahi taala kii wàkkirlu ci yàlla mooy ki nga xam ne lépp lu yàlla def neex na ko allahu akbar lépp lu yàlla def nanu neex xam ngeen ne lii des na ngay gis jullit yoo xam ne lii yàlla di def neexu leen du ñu bàyyi mbir mi ci loxoy yàlla dañuy tëstësi tëstësi ba xam ne mënatuñ ci dara ñu ne sonn naa loolu du yëfu jullit maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakuna lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonante ne nii la ñoom ñu naan nee la mbokk yi jullit mooy ki nga xam ne li yàlla di def daf koy neex ridallah kontaante yàlla daf koy neex lépp lu yàlla def nga xam ne noonu la bul ne sama programme yàqu na bul ne su ma defoon nii def nee bul ne su ma calcul ay tic-tac ay calcul déedéet li yàlla di dogal li yàlla di def na la neex yow jullit atawakkalu mbokk yi huwa tumaaniyatul qalb bi mawuudillah mooy sa xel dal ci li la yàlla dig na sa xel dal ci yàlla lim la dig yàlla lim la dencal yàlla lim la wax ne dinaa la ko defal na la ci sa xel dal waaw na ci sa bakkan teey na sa xol nangu li yàlla tabaraka wa taala wax ne moom la lay defal mbokk julit loolu mooy imaan loolu mooy islaam loolu mooy ihsaan mooy lan sa xel di dal ci yàlla lim la dikk imaginel jullit bi gëm ne yàlla daf may nax ci jaamu gi ma koy jaamu wóorul ëllëg ak si biir mun naa koo jaamu ba pare ma xëy rek mu ne yéen ñëpp aljanna ma ba ma daal di perte man ak wala mu daal ñuy jël ñun ñëpp ab jullit du mel noonu ab jullit mooy ki nga xam ne xelam day dal ci li ko yàlla dig ci li ko yàlla dencal ci li ko yàlla wax mbokk yi atawakkalu huwa al ya'su min al xalqi wal i'timaadu ala allahi waxdahu tawakkul mooy nga bàyyi wéeru gi ngay wéeru ci nit ñi nga wéeru ci borom nit ñi jaamu gi ngay jaamu jaam ñi jaamu yàlla wéeru gi ngay wéeru ci borom ci nit ñi bàyyi borom nit ñi wakiirlu mooy nga bàyyi fi mbindeef yi jëm ci borom mbindeef yi ne xoolal tey ñun sunu mbir lépp ci mbindeef yi lañ ko aj lu néew ci ñun ñooy am problème dellu ci yàlla tabaraka wa taala loolu tax jullit yi ñu mun a am ngëm waaye amuñu yaqiin amuñu tawakkul tawakkul la ñuy def te tawakkulu ala allah mooy nga bàyyi fi jaam ñi dem ci borom jaam ñi bàyyi fi mbindeef yi dem ci borom mbindeef yi loolu mooy tawakkulu ala allah fa tawakkulu kullu mahdil iman tawakkul ala allah mooy mbalkam ngëm yàlla boo ci naanee rek mandi say mbir dootoo ko teg ci kenn say mbir dootoo ko jox ci kenn say wax dootoo ko wax kenn yàlla rek yàlla rek moo lay doy wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la lu tax li annahu farida ala al ibad lu yàlla farataal ci jaam yi la mooy ñu jël seen mbir jox yàlla wala yakunu al iman illa bi tawakkul ngëm yàlla du mën a mat lu dul nit di jël mbiram di ko jox yàlla loolu tax tey li ngay dégg gëm naa gëm naa gëm goo xam ne yow ci làmmiñ la yam say mbir joxoo ko yàlla yaa ngi yaakaar say mbir ci ñeneen ana ngëm ngëm mënul am foofu ngëm dëgg-dëgg mooy nga jël sa mbir jox yàlla tabaraka wa taala wa tawakkalu yazdaadu wa yanqus jox sa bopp yàlla tawakkul day wàññeeku day yokk comme ngëm al iman yazdaad wa yanqus ngëm ni muy yokkoo di wàññeeku noonu tamit tawakkul ala allah noonu lay yokkoo di wàññeeku waaye nit ñi yemuñ ci wannaas yatafaadaluuna fi tawakkul nit ñi dañoo rawante ci tawakkul ala allah léeg-léeg nga gis ku jël lépp jox yàlla bàyyiwul dara waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaan benn baaraam la jox yàlla benn baaraam ci mbiram yi benn baaraam léeg-léeg nga gis koo xam ne moom moom baaraam bi sax fekku ci joxul yàlla dara du am dara ba dem ci yàlla moom mbir yi rek nit ñi rek moom nit ñee ko doy yàlla doy ko waaye léeg nga gis koo xam ne mooy ki ma leen doon wax sànq ki nga xam ne benn waaye moo fëgg këram ñëw di régler ay problème am pare bàyyi fa numéro téléphone ne ko problème boo amati woo ma mu ne ko soxlawu ma lu tax mu ne ko ki la tax nga dawal sa oto yee la bàyyi loola salal nga daw ba fii rek la sama problème am kooku doy na ma te ko koy yàlla allahu akbar wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu allahu akbar mbokk yi atawakkul wa sabilu ila alxayaati alhaadi mutmainna saida jël sa bopp jox yàlla moo lay yóbbu nga dund dund gu neex moo lay yóbbu nga dund dund gu dal moo lay yóbbu nga dund dund gu teey waaye moo lay dund moo lay yóbbu nga dund dund gu am texe ndeke doomu aadama yaa ngi ci àddina bi wër ku nekk ngi wër taraangaam ku ne ñii ngi wër texe ñii ngi wër dund gu neex ñii ngi wër dund gu am dal ndeke mënul am fenn lu dul atawakkalu ala allah nit bu amee tawakkalu ala allah te mooy mu jël yëpp teg jox yàlla day am dund gu neex day am dund gu dal day am dund gu teey day am dund goo xam ne dafa am teeyu bakkan léeg-léeg nga gis nit koo xam ne wër na àddina daj na dajal na dëkk ko dëkk nee na fa naam daraane fu nekk dugg na fa waaye mbiram mënta sotti lu tax ndax dafa joxul boppam yàlla atawakkulu huwa albaabu almuaddi ila zihabi ila zihabi alxawf wa inqitaai al ahsan mbokk yi jël sa bopp jox yàlla mooy bunt bi nga xam ne boo ci jaaree moo lay yóbbu ci tiitaange dañ ci yow njàqare dañ ci yow ñàkk confiance dañ ci yow xoole ki nga xam ne am na lépp te xelam ak xolam mu ngi tremble musul tëdd nelaw ndax mi ngi tiit léegi ñu dajji samay fenêtre rey ma léegi ñu taal ma bomb léegi ma dugg auto accidenté léegi ma dee léegi ma ñàkk léegi ma feebar buntu tawakkul ala allah boo ci jaaree moo lay yóbbu ci tiitaange yi ngay tiit yëpp dañ ci sa xel dañ ci sa xol soo tëddee guddi nga nelaw sooy dox ci mbedd mi di dox ci tranquillité sa xel di dal guddi ak bëccëg ngay xam ne lu dul yàlla neen la yàlla rek mooy dëgg moo jëkk moo mujj loolu mooy atawakkul ala allah tiitaange gi ngay tiit sa xel ak sa xol ñàkk bi mu ñàkk tranquillité lenn dong moo koy delloo ci yow mooy nga jébbal sa bopp yàlla wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la almutawakkilu sadiq fi tawakkulihi laa yaxda'u qalbu li maxluqin ki jox yàlla boppam dëgg-dëgg desalu ci dara kooku xolam sax du xalaat mbindeef xolam boo ko ubbee doo ci fekk lenn lu dul yàlla tabaraka wa taala xolam yàlla rek moo ci dëkk kenn du ci dugg li anna qalbuhu mamlu'a bi thiqa billah ndax xolam dafa fees dell ak confiance ci yàlla tabaraka wa taala mbokk yi gis ngeen mbir yi nekkee du ay waxu kese mbir yi nekkee ay jëf la du ay wax comme ñun niñ ko foogee loolu tax ñu bari ci ñun danañ juum ci bu ñu jàppee ne mbir yëpp ay tic-tac la ay lijanti la ay taf-taf la ay réglé ndeke mbir yi jox sa bopp yàlla la fexe ba nga am kóolute ci yàlla tabaraka wa taala nga am ci yàlla confiance ku amul ci yàlla confiance yow dara dootu la doy ci àdduna dara dootu la doy àllaxira al mutawakkilu sadiq fi tawakkulihi ki wàkkirul ci yàlla dëgg dëgg ngëm laa yaxsha maxluuq ki jox boppam yàlla dootul ragal mbind wala nit ki nga xam ne benn waaye dana ne yow man ngay fonto li nga xam ne man dégguma olof làkkat laa rek nga woy say mbokk dem ne damay tuub damay jéggulu ci ndax waa ji ñemewu ma ko ndax nee nañ ab bambara la wala ab saraxula la wala ab joolaa la wala ab séeréer nga dem ah tëdd sooti guddi nelaw ku gëm yàlla du ragal ku dul yàlla yàlla rek ngay ragal doo ragal keneen da ngay xam ne lu dul yàlla neen la li anna al maxluqina indahu laa yamlikuuna li anfusihim darran wala nafaan ndax da ngay gëm ne mbindee bi mënaluñ seen bopp njëriñ mënaluñ mënuñu lor seen bopp ku mënulu sa bopp dara koo xam ne li nga nekk ñëpp ci jàpp pour mu sotti kenn warulaa ragal kenn warulaa tiit kenn warulaa jàq waaw koo fi gis rek mbiram pour mu sotti ñëpp ci jàpp amul ci ñun laa wax ku ñu jàppul ci ay mbiram ku mu mën a doon rek say mbir da nga cee jàpp nekkal président nekkal xalifa général nekkal waliyu nekkal muqaddam nekkal cheikh nekkal ministre nekkal ku la doon ku mu neex ba ci bu la neexee nga nekk ab yonent say mbir buñ ci jàppul du sotti daal yi nga sol ñan ñoo ko defar yére bi nga sol ñan ñoo ko ñëw lekk bi fan la ñore ñan ñoo ko bay kan moo ko togg ndox mi kan moo ko defar ba nga mën cee jot oto bi mani amul ku ñu jàppul ci ay mbiram kenn dong lañ jàppul ci ay mbiram mooy allahu samad keneen ku dul moom rek tey mbir dañ cee jàpp mbokk yi ndax mbindeef mi ngay ragal mënalul boppam lor mënul jëriñ boppam fa kayfa yamlikuna li ghayrihi ku mënul jëriñ sa bopp mënoo lor sa bopp naka lañ lay ragale naka lañ lay tiitee naka lañ lay yaakaare mbokk yi al mutawakkilu sadiq fi tawakkulihi laa yahrisu ala dunya ku gëm yàlla dëgg-dëgg jox koy boppam jox ko mbiram du xër ci àdduna àdduna du ko jaral dara ndax àdduna bii war nañu bari ci ñun waaye lu fi am nit ba ko fi lu fi nit am ba ko fi di nga fi ba jabar bàyyi fi doom bàyyi fi lépp lu mu mën a doon bàyyi fi compte banque bàyyi fi kër bàyyi fi waruwaay mani ba ñu or bi nga takk wala jaaro bi nga takk wala montre bi sax bisa ngi ñëw nga ba ko kon ku gëm yàlla dëgg-dëgg du xër ci àdduna qaani bi ma qasama allah day doylu li ko yàlla jox li annahu yaalamu anna al xirsa laa yuti wala yamnau ndax xër ci àdduna du tax nga am xër ci àdduna foqale ci àdduna di wër di daw fu ne nga dugg fa pour am du tax nga am wallahi ay nit a ngi ci àll bi ba ñu tukkee ba léegi musu ñoo yónnee dërëm te du benn nit du ñaari nit ay nit jël nañ fi gaal di sóoru Europe tey boo fa demee amuñu lu ñu añee te yaakaaroon nañ ne bu ñu tukkee am ay nit ci réew mi des fi am lu ne gaañ musuñoo tukki yàlla mooy joxe jullit day gëm ne yàlla mooy joxe da ngay kër këri rek loolu lañ la sant te yàlla mooy joxe boo gëmee loolu nga noppalu kër këri taxul kenn am dañ koo wax rek dañ la ko wax kër këri lañ la wax mais du mooy maye xoolal maçon ak entrepreneur maçon bi mooy def lépp entrepreneur bi du takk te moo ëppale maçon bi wala baykat bi kii jënd mbir mi wala baykat bi ni mu sonnee waa ji mooy ñëw jënd ko am ci moom lu mu amul woon allahu akbar am ci loo xam ne moom mi ko bay amu ko ci kon kër kër yi taxu taxaw dañ delloo mbir yàlla mbokk yi jullit du xër ci àdduna jullit day doylu li ko yàlla may ndax yàlla tabaraka wa taala dafay xamal jullit boobu nga xam ne moo ko jox lépp kër kër yi taxuta am taxuta ñàkk al mutawakkilu sadiq fi tawakkulihi istaghna bil mu'ti al mani am man laysa bi mu'tin wala mani jullit bi gëm yàlla dëgg-dëgg day doylu kiy joxe day doy day doylu kiy xañe lu ko yàlla jox mu xam ne lii la ko jox lu ko yàlla joxul mu xam ne joxu ko du sikk kenn buñ doon séddale mbir ba yegg ci moom ne jeex na day xam ne qadrullah wa ma shaa faala allahu akbar bokk yi ndekke mbir yi du ay waxi kese mbir yi dafa am fu mu war a jaar bu fa jaaree rek la mu war a nekk mu nekk ko waaye mbir yi bu fekkee ne amul fu mu war a jaar da ngaa xëy rek bëgg a nekk ab julit jëhran nii kërën këng fekk demoo jàngoo xamoo dërëm du sotti ndax yi ñuy wax ni bëri na tey ay ay jullit yu ko xamul moo tax dund gi mel nii moo tax sunu mbir metti moo tax sunu mbir doy waar mbokk yi al mutawakkil ala allah al mutawakkilu as-sadiq fi tawakkulihi mutma'innun nafs ki gëm yàlla dëgg jox ko lépp jox ko boppam xelam day dal mutma'innun nafs bakkanam day teey salimu sadr dënnam day wir alal salimu sadr saabitul qalb xolam dëgër li annahu laysa li maxluqin fi qalbihi qatar du dencal kenn mer soo ko diggee joxoo ko sax mu xam ne mbir yi noonu la yàlla la neexul waaye bu neexoon yàlla rek yàlla mu jox allahu akbar doo sikk kenn xoolal tey benn waaye da lay dig joxu la rek nga bëgg a yenu àdduna di daw ak moom da lay jaral sax nga dem ci journaux yi ne diwo fi gën a bon ndax wax na ma dinaa la jox joxuma la waaye da ngay gëm ne yàlla la neex qadrullah wa ma shaa faala su neexee yàlla rek da lay jox bu neexul yàlla du la jox ndax yàlla moo yor xolu jaam yi yàllaay tàggat xolu jaam yi ma ne am na ñoo xam ne yenn saa yi duñ duñ la xam sax dañuy ñëw ne la yaay diw nga ni waaw rek ñu bind ko chèque jox la wala ñu ne la magasin bi wala ñu ne la nangama nangam wala kër gi yaa ko moom benn sëriñu daara mu ngi may nettali daaraam xat am ay jafe-jafe benn waaye ñëw ne ko yaay diw mu ne waaw mu ne ko jëlal terrain bi nga tabax yaay diw kon xam nga ne xamu ko kon mbokk yi ku gëm yàlla dëggi dëggi ngëm xelam day dal dënnam day wér xolam day dëgër ndax day du dencal benn jullit ñagg-ñagg du dencal benn jullit lu bon al mutawakkilu sadiq fi tawakkulihi ku gëm yàlla dëggi dëggi ngëm yu assiru sidqa xaysu ya yadurruhu alal kadibi xaysu laa yan xaysu yanfauhu ki gëm yàlla dëgg dëgg gëm day tànn dëgg xam ne dëgg dara mënu ko lor mu moytu fen xam ne fen du jëriñ wala am na ñoo xam ne ci fen lañu sampe seen aduna ci lañ nar a samp seen allaxira pour seen mbir sotti dañuy dugg dëkk bi fen rek di sos di kàcc di nar pour seeni mbir réglé wu waaye ki jox yàlla boppam dëgg-dëgg day moytandiku loolu ndax day xam ne ay fen dëkk bu mu samp bëccëg a ngi ñëw dina ko tas mbokk yi lii ñu leen doon waxtaanal nii di ko di leen ko fàttali di ko fàttali suñu bopp moom moo doon atawakkulu wa tawakkulu léegi nag ñu ñëw ci meññeef yi nga xam ne atawakkulu dina ko jur meññeef yi képp ku jox boppam yàlla garab googu nga jëmbat te mooy nga jox sa bopp yàlla di nga ci jële mbir yi may lim bu njëkk mooy di nga am ngëm yàlla usulul iman li qawlihi taala wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin su ngeen gëmee yàlla bu fekkee li ngeen di wax dëgg la jox leen seen bopp yàlla su ngeen ko defee yàlla nee na dinaa leen may ngëm mbokk yi may dégg ana kan ci ñun moo bëgg ngëm su fekkee kenn ci ñun bëgg na ngëm lan lay def mooy day jël mbiram yëpp jox yàlla soo ko defee yàlla may la ngëm kon loolu mooy bu njëkk ñaareel da ngay am tawfiq wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib tawfiq da ngay am tawfiq am jàmm jàmmi àddina am jàmmi àllaaxira am jàmm ci sa xel jàmm ci sa xol jàmm ci sa yaram jàmm ci sa dëkkuwaay lu tax ndax dangaa jox sa bopp yàlla kooku mooy ñaareel bi nga ciy jëlee boo joxee sa bopp yàlla ñetteel an najaatu min fitnati shaytaan yàlla da lay muccal ci fitnaay shaytaan innahu laysa lahu sultaanun ala alladina aamanu wa ala rabbihim yatawakkaluun yàlla nee na ñi ma ñi ñi jël seen bopp jox ma seytaane mënalu leen dara ñu ne yàlla ñooñu mooy ñan mu ne mooy ñi ngëm yàlla jël seen bopp jox ma ñi gëm yàlla jël seen bopp jox ma ñooñu seytaane mënalu leen dara dara la leen seytaane mënalu allahu akbar kon mbokk yi nañu jël sunu bopp jox yàlla sunu jëlee sunu bopp jox yàlla luñ ciy jële mooy dañuy yëg ne seytaan duñu mënal dara te ku seytaane mënalul dara nga mucc nga am jàmmi àdduna am jàmmi alaxira te yàlla yàlla nga ñu boole ci ñooñu mooy ñetteel ñeenteel mahabbatullah yàlla da lay bëgg yow mi jël sa bopp jox yàlla yàlla da lay bëgg mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala nee na inna allaha yuhibbul mutawakkilin yàlla bëgg na ñi wàkkirlu ci moom dama leen di laaj mbokk yi ndax bëgg ngeen yàlla bëgg leen ku bëgg ci ñun yàlla bëgg ko lu muy def mooy day jël boppam jox yàlla kooku mooy ñeenteel juróomeel mooy alkifaaya min kulli wajhin yàlla dalay doy ci ñépp borom bi tabaraka wa taala mu ne inna allaha borom bi nee na wa tawakkal ala allahi wa kafa billahi wakila joxal sa bopp yàlla ku jox sa bopp yàlla yàlla doy la allahu akbar juróomeelu tomb mooy boo joxee sa bopp yàlla yàlla lay doy keneen dootu la doy yàlla rek moo lay doy yàlla na yàlla doy juróom benneel mooy xusulu sabaat da ngay am dal da ngay am tranquillité borom bi ne qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkalil muminuun lépp lu la dal da ngay xam ne yàlla la nga yëg ne dara du la dal lu dul lu neex yàlla ndax yàlla mooy mooy sa kilifa yàlla mooy sa boroom moo tax nga jël sa mbir yëpp jox yàlla moo tax lu la dal rek looy gëm qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana dara du nu dal lu dul lu neex yàlla allahu akbar mooy da ngay am tranquillité lu la dal rek da ngay xam ne ci yàlla la bàyyi ko lu neexul yàlla du la dal lu neex yàlla rek mooy am ci yow lu neexul yàlla du am ci yow bu adduna bi yëpp àndoon bëgg laa jox loo xam ne yàlla nee na doo ko am doo ko am bu adduna bi yëpp àndoon ne dañ lay xañ lu la yàlla bëgg a jox kenn mënu ko yonent bi ba muy jàngal xadis saxaaba ba xadis ba ba xadis ba tolla fa da ko ne yàlla yëkkati na xalima gi kayit gi daa la doon bindee sendi na juróom-ñaaraleel mooy xusulu nasr wa tamkin da ngay am ndimbalu yàlla waaye da ngay am dal borom bi tabaraka wa taala nee na in yansurukum allahu fala gaaliba lakum wa in yaxzulkum faman za alladi yansurukum min baadihi wa ala allahi falyatawakkali almuminuun borom bi tabaraka wa taala nee na su leen yàlla dimbalee ana kan moo leen di gañe bu leen yàlla gàcceelee ana kan moo leen di indil victoire kon mbokk yi dëgg-dëgg meññeefu ngëm yàlla meññeefu jël sa bopp jébbal yàlla te mooy atawakkulu ala allah nit ku jël boppam jox yàlla meññeef yi mu ciy jële fir yi mu ciy jële lu am importance la bu njëkk da ngay am ngëm ñaareel da ngay am jàmm ñetteel da ngay mucc ci fitna seytaan ñeenteel yàlla da lay bëgg juróomeel yàlla moo lay aar juróom benneel mooy sa xel day dal juróom ñaareel mooy da ngay am ndimbalu yàlla juróom ñetteel mooy yurisu salaama min kulli suu jàmm ngay am fépp moo mun a nekk allazina qaala lahum annaasu inna annaasa qad jamacuu lahum faxsawhum fa zaadathum imaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil fanqalabuu bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum suu yàlla nee na saxaaba yi keroog bañ leen ne tey ngeen dee nit ñaa ngi dajaloo dañu ne ñun yàlla doy nañu ñun yàlla lañu ragal yàlla nee na loolu ngëm la leen yokk ñu ne yàlla doy nañu yàlla moo ñuy protéger yàlla moo ñuy aar lan lañ ci jële mooy fanqal fanqalabu bi ni'matin min allah ñu daal di dellu yóbbaale xéewal ak ay ngëneel yàlla nee na lu bon laa lu leen kon ku jox sa bopp yàlla jàmm rek ngay am mbokk yi ndeke ku bëgg jàmm kon àdduna jàmm àllaaxira jëlal sa bopp jox yàlla juróom-ñeenteelu tomb mooy yajlibu rizq yàlla dalay may wërsëg foo wiiri wiiri wiiri wiiri da ngay am rek doo mës a ñàkk ci xadis bu gudd yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam xadis bi omar moo ko solo yonent bi ne law annakum tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayr taxdu ximaasan wa taruhu bitaana yonent bi ne bu ngeen jëloon seen bopp jox yàlla comme picc yi nuñ jëlee seen bopp jox yàlla yàlla dina leen wërsëgale ni muy wërsëgale picc yi picc yi bu ñu xëyee suba dañuy génn tàgg yi daal di xiif waaye bala ñuy dellu si daal di lekk ba suur ba indil seeni doom lu ñu lekk lu tax parce que dañoo jox seen bopp yàlla fukkeelu tomb mooy da ngay am confiance am sécurité ci yàlla tabaraka wa taala ci xadisu ibnu abbas atawakkul huwa siqatu billahi azza wa jal jël sa bopp jox yàlla mooy nga am kóolute gum sëkk ci yàlla tabaraka wa taala nga xam ne yàlla lu am yàlla fukkeel ak benn ci la ñuy jeexale yurisu sabr day tax nga am muñ alal makaari yi ci lépp luñ sib lépp loo xam ne problème la yàlla daf la ci may muñ loola tax borom bi tabaraka wa taala mu wax ci alquran ci ay aaya yu bare bari allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ñi muñ te di wék di wàkkirlu ci seen borom ñooñu ëllëg teraanga yëpp ñoom ñoo ko fay ëppalee kon jël sa bopp jox yàlla daf lay may muñ ci nga mën a muñ bépp problème lu tax yàlla nee na allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun kon mbokk yi lii moo doon waxtaan wi li ci jub ci yàlla la bàyyi ko li ci am ay njuumte doomu aadama moo doon wax ak yéen di ko jégglu suñu borom di leen ko jégglu lii moo doon atawakkulu ala allah wa tawakkulu wa samaratu tawakkul ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu ak di ñaan yàlla tabaraka wa taala weer wi ñu dugg muy weeru tabaski yàlla ñu yàlla may ñu fekke ko ak jàmm yàlla ñu yàlla may ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ji ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla yombal jullit yi lépp lu nga xam ne jaamu yàlla gum leen ci sant la yàlla yombal leen ko yombalal ko seen njaboot aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu amin wa antum